ci mbir mi nga xamante rek moom lañ ko jotoon ko waaw jërëjëf asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu xanaa euh, gën a am firnde rek ci dëkk bi ñu ne euh, dañoo foowee lépp luy institution foowee lépp li nga xam ne mooy li am solo ci réew mi dem nañ ba jamono bi nga xam ne léegi dikk mook pulaayee ñoo yem ku ne lañ fay woo ñoo leen la fay woowee donc euh, ñun nag amuñu benn jaaxle amuñu tamit jàkkare ndax jamono bu ne ci lu jub lu jaar yoon lañuy dox fuñ ñu mënti wooyu dañuy am te dem pour xol lan la ñuy wax ndax xam nañ ni ñi fi ne moomuñ seen bopp te mën ñu seen bopp mm. dañ leen sant rek ñuy def mm. donc ñun on les en veut pas xam nañ ki nekk ci kaw ki xam ne moo leen mm. ilif leen sonal di leen def loog leen leen leen leen sonal ñun kooku lañ ko jëflanteel tey dañoo jógee suba léegi ci lancement benn point de presse di am euh, jotaay ak sénégalais di waxtaan ci wàllu parti bi nga xam ne ñu ko taxawal bu tudd rassemblement pour la vérité ànd si muy parti bi nga xam ne euh, li mu def dafa dafa révolutionnaire et ça fait trembler la république au plus maanaam mbiru l'islam ñun dañoo teg benn problématique bi nga xam war a waxtaanee la te on va imposer ce débat là dans ce pays lan moo tax ay jullit nekk si dëkk bi lépp quatre-vingt-quinze pour cent de musulmans ñu ter leen leen mun leen sukkandiku si jàngale seen yonent yéen pour ñu mën a xool ñuy defaree dëkk bi lii mooy suñu question bu tegal dëkk bi te bu dee ngeen waxu démocratie wala waxu ouverture France bee ngeen di roy am na parti islamique na parti tout l'Europe am na ay partis yoo xam ne ils sont ah, appelés démocrates chrétiens c'est des partis chrétiens yoo xam ne ñu ngi puiser si jàngale yoon ci Yàlla pour defar dëkk bi donc mun ñu ignorer jàngale yoon ci Yàlla Insa ak jàngale yoon ci Yàlla Muhammad ci defar dëkk bi yoo xam ne ils sont 100 pour cent de croyants dans ce pays donc lii mooy le débat qu'on pose c'est un débat bi nga xam ne de paradigme bi nga xam ne ñu ngi siy xaar ay réponses mais pas ay intimidation tiital nous avons dëgg yàlla joxe nañ suñu bakkan yi addiye yàgg na li imam ñun xam nañ ñu dund lu mel noonu moo tax nous sommes déjà préparés macha allah. alhamdulilah donc alhamdulilah. Euh, je ne pense pas. man dama jàpp ni ñoom amuñu woon sax euh, yëg-yëgu woo ma ndax euh, Karim moom dañoo dem fekk ko këram jàpp ko depuis le matin parce que dafa def vidéo man vidéo Karim euh, fàttaliku ma sax la Karim wax et en aparté lama ma Karim wax associé ci vidéo bi j'ai appelé à ce que les gens cotisent dans la cagnotte et j'ai appelé à ce que les gens prient pour Imam Ndao fàttaliku fu ma tuddee sax tur benn nit donc je ne vois pas pourquoi sax ñu war ma convoquer par rapport à vidéo bu Abdou Karim def je suis hyper solidaire envers Karim qui se bat pour nous qui se bat pour ce pays lépp lu ko laal man jàpp naa laal na ma te lépp ñu koy def ma ko defaale benn yoon. Hmm. donc euh, macha allah. Euh, non non lii du substitution Sénégal bi yëpp man dama bokk suñu gëm dañoo rey Imam ndaw loolu laa gëm lii laa wax fépp ku ñu rey dañu ko rey. léegi nag nan lañ ko reyee ak nan lañ def ba rek loolu laa xamul moo tax ma doon ñaan famille ñu def autopsie pour dimbali waale ñun ñi ñeneen ñi nga xam ne ñun ñuy jàpp dañu tëj ndax sinon ñun ñëpp dañu def ñu ko def mhm. nañ ñu tëj ñu dugal ay ay ay poison dañu defal ay produit ñuy génn deux ans trois ans après ñun ñëpp ñuy dee comme ay weñ la fin des combattants de ce pays ne doit pas être la moor la mort du yoon si dëkk bi xam ne dëkk bu sérieux la waaye rey bi moom wax dëgg yàlla amuñ si muskil la man lii je le tiens de imam ci boppam bi xam ne wax na ma yu bëri yee xam ne ay laser ñu nekkee prison ñu koy isolé di ko def mbir yee xam ne ba mu génnee léegi ni yaramam neexatul dem na ci médecin yu xool ko ne ko yéemu nañ lu tax ngay dox ba tey ndax sa yaram dara baaxtu ci donc lii li may wax ne lu yàgg la peut-être léegi làqu na mën naa ko wax waaye lii dañ ko xam bu yàgg cool nag mooy man je me sens sax coupable dama jàpp ñun ñëpp dañoo setaan imam imam dañoo waroon bu mu génnee yoo doon jéem a jël imam dem jéem a xool ñu def ci moom lu ko seetee ak lu ko saytoo on dit pas que diw moo rey imam on dit pas que diw ko rey ndax loolu yàlla moo ko xam du ñu wax li nga xam ñun xamuñu ko suñu culture ak suñu éducation may ñuy wax lu ñu xamul waaye nag euh, xam nañ nous avons un état délinquant un état bi nga xam ne jël na nit bu wér nekk de en très bon santé mu tuumaal ko diaboliser ko sosal ko tëj ko toroxal ko génnee ko mu am ay yitte ak ay yéene ñu bañal ko ko ba mu toog di bëgg a génn àdduna ñu taxaw nañ ko bëgg a dimbali on a un état mesquin un état hypocrite un état criminel bi moom on le on le réaffirme et loolu mënuñu si dellu ginnaaw Macky dafa war comprendre dëkk bi ay yambar nekkuñu fi c'est que il faut mu xam ko dugg si boppam. Macky c'est pas un roi il faut mu comprendre dëkk bi. moomul Sénégal ñoo ko fi ëpp wàll ñoo ko fi ëpp cër te moom li muy def nii. na attendre il va finir très mal munoo def le mal euh, sëñ Mohamed di cultiver le mal di semer le mal pare am la bien mënul nekk. qui se le tient pour dit nag on le tient pour responsable de beaucoup de choses qui se passent dans ce pays et on va demoon ba sur la planète Mars wallahi on va le suivre. donc euh, lii mooy li nga xam daal bëgg leen ko wax di leen ziar yi ñëpp di leen béggee euh, di gis sama yaa Seyda di nuyu ñëpp macha allah Alaaji Clédor toujours présent yàlla na yàlla sàmm Sénégal euh, ni ñu nekkee di foowee les institutions les forces de défense la liberté de défense dafa ahurissant et dafa dafa dafa dafa triste dafa triste macha allah asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu ah, voilà mbokk internet yi comme ni ngeen ko mu nekk ay kàddu kii di euh, euh, kii di euh, professeur Cheikh Oumar Diagne doon artu rek si arrestation bi nga xamante rek jot nañ ko arrêté kii di Abdou Karim Gueye Karim Krum xaq ndiki tey si alxamis bi si suba gi lañ ko rek daal di jàpp ginnaaw nag ay élément bu division des investigations criminale dik ñoom ñoo ñëw rek si këram ngir rek euh, daal di koy wax ne rek dañ la daal di woolu euh, dugal ko si oto bi daal di koy yàpp yóbbu ko euh, fii nga xamante rek fii la ñu nekk nii si diwaanu dikk en tout cas mu nekk ay mbir yoo xamante ne rek bu ñu daal di sukkandikoo rek. en tout cas mu nekk ay mbir yoo xamante rek bu ñu daal di sukkandikoo euh, si ay xibaar yi nga xamante ne rek euh, euh, kii di ak Clédor Sène yëkkati na ko waaye tamit kii di ñi nga xamante rek ñoom ñoo nekk si mouvement ñoo lànk ak ñi nga xamante ne également ñoom ñoo nekk si collectif nitu dëgg valeur ñi nga xamante rek ñoom ñoo fi nekk tout à l'heure yi ñu yëkkati rek jëmale si convocation bi nga xamante ni mbokk internetu Sénégal 7 point com euh, jot nañ ko convoqué kii di euh, Karim Xrum euh, Xax ñoom ba léegi rek xamuñu motif bi waral ñu daal di convoqué rek ki nga xam ne rek moom moo di Abdou Karim Gueye waaye daal lépp lu ñu ci mën a rek jàpp nañ ne kii di Karim moom jamono ji ñuy wax ak yéen mu ngi rek si loxo yi ñi nga xam te rek ñoom ñoo di élément wu dikk ñu daal di koy euh, auditionné di ko déglu euh, si jamono joo euh, waaye a daal di dañ ko daal di si euh, séjour carcéral bi nga xamante rek defoon na ko si si euh, euh, kaso bu rëbës mu nekk ay mbir yoo xamante ni ñoom am nañ jortu ne loolu moo war a tax kii nga xamante rek moom moo di waa élément bu di woolu kii di Abdou Karim Gueye Karim Kurum Xaq fi nga xamante rek si division des investigations ak si jamono joo xamante ni ñu ngi rek xaar avocat yi nga xamante rek ku si mel ni maître Khoureychi Ba bi nga xamante ni jamono ji mu ngi rek si biir fi nga xamante rek moom moo di si biir nekk ak Abdou Karim di déglu bu baax a baax li nga xamante rek moom moo di dossier bi mu toll waaye daal li ñu leen mën a wax rek moom moo di ñu ngi daal di xaar rek à ce que rek ñi nga xam rek ñoom ñoo di avocat yi layal kii di Abdou Karim Gueye ñu génn ñoom tamit ñu wax ñu euh, exactement yëf yi fan la toll waaye tamit lan mooy motif convocation bi nga xamante ni moom moo waral rek ñu daal di woolu kii di Abdou Karim Gueye ndiki euh, moom lañ ko jot a woolu waaye nag bu ñu ñëwaatee si kaddu Cheikh Omar Diagne euh, bi nga xam te rek moom i tamit tey si suba gi rek jot na taxawal ab mouvement boo xamante donc rek jot na ko daal di taxawal ndiki tey si ab daje bi nga xamante rek jotoon na convoqué ak conférence ngir rek mën a dénoncer waaye tamit li nga xam te rek moom moo di ñu koy tuumal si wàllum terroriste te rek dëggal ne du terroriste waaye nag réformiste la euh, par rapport ak li nga xamante rek moom la jot wax tey euh, si ab conférence de presse mu nekk ay kàddu yoo xamante ne euh, ne rek moom moo di Imam Ndao toroxal ko waaye tamit teg ko yëpp métital biir kaso bi ba noonu la ñàkkee bakkanam kon nag mbokkante notu sénégal 7 point com ñu ngi leen di gërëm bu baax baax di leen fàttali ne ñu ngi taxawoon rek fi nga xamante rek rek moom la daal indi kii di Abdou Karim Gueye kurum xaax donc ñu ngi gërëm bu baax baax si bàyyi xel bi uh, di leen jox dig daje ba si kanam tuuti incha allah ak avocat ki nga xam te rek moom di maître Khoureychi Ba ngir rek ñu mën leen a jox xibaar bu leer uh, si uh, dossier Abdou Karim Gueye jàngeen jëf